vendredi 3 avril 2020 à 20h, le Sénégal a enregistré son second cas de décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une Sénégalaise âgée de 58 ans qui était hospitalisée au service des maladies infectieuses et tropicales de FAN. Je présente, au nom de Monsieur le Président de la République, du gouvernement et du peuple sénégalais, mes condoléances attristées à sa famille et à ses proches. Aujourd'hui, samedi 4 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 177 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas importé, de 10 cas contacts suivis et d'un cas issu de la transmission communautaire. Six patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 219 cas ont été enregistrés positifs au Sénégal, dont 72 guéris deux décédés, un évacué. Par conséquent, nous avons 144 cas de traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite une bonne fête d'indépendance à tout le peuple sénégalais et renouvelle son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Mali communiqué démb ci àjjuma bi ñetti fan ci weeru avril 2020 bi vingt heures jotee le Sénégal enregistré ñaareelu cas bi xamante ne décédé na gaañu na te Covid-19 bi waral ko muy benn sénégalaise bu am juróom fukki at ak juróom ñett ñu hospitalisé ko woon fële ci hôpitalu Fann président de la république gouvernement bi ak peuple bi ñi ngi jaale famiyam ak njabootam bi yépp di ñaan yàlla mu xare ko àjjana tey euh, samedi ñeenti fan si weeru avril 2020 ministère la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test wu bés bi si téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari test fuk ak ñaar ñew nañ ci positif benn bi ka importe la mooy cas bu jóge bitim réew fukk yi ka contact yu ñu doon suivre la benn bi nag mooy cas transmission communautaire la jóge mooy mënuñ ko lënkaleek euh, benn contact wala benn cas ñu wax ne tey aussi juróom benni patient yu ñu hospitalisé woon wér nañ tey danañ leen génn ci kanam yeneeni patient yi nekk hôpital ñu ngi yëg tan bu ñu xaymee ba mbir mi commencé ak léegi Sénégal enregistré ne ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti cas ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeent yooyu juróom-ñaar fukk ak ñaar wér nañ ci tey ñaar génn nañ ci àdduna kenn évacué nañ ko si coobaree famille am donc fi ñu nekk ak fukk ak ñeent ñu ngi hôpital de la santé de l'action sociale été indépendance ñaax surtout ngeen ñu mën a covid 19 bi si réew mi maa ngi leen di remercier baax